promoteur la wuli wuli waat sunu xarit moom chaque jour mu changé changé fans <laughs> des fois a ko neexee danaan combat bi Alima laa ko tuddee mu demee ñu daan ko bu ñëwee ni Cheikh Sarr laa ko tuddee te mu dem ñëw ñu daan ko mujj mu ne tuddee naa ko wax deewee jaag yëpp. xëy na porte bonheur am lay wër. waaw non léegi seen ji mooy porte bonheur bi mu ñëwee ba léegi nii moom toi Fatou. <laughs> Cheikh maa lay nuyu. ñu lay fay. di sant yàlla sunu borom. <laughs> di santaat yàlla sunu borom. di ju Seydina di sant samay waajur di ñaanal sama papa yal na ko yàlla xare ajana di nuyu ñu nekk ci bi ñëpp di jiital Père Mbaye Ngoné Fall moom moom doon ñëw ci sama papa xaytam la woon euh, chaque jàngi reefa doon ñëw foofu moom nit baax ma maa ngi lay baax Père Mbaye nuyu Seya maa ngi lay siyaare sama xarit sama yow tàng euh, naa fii yaa ma fi jëkk dala ci Zik FM nga nekk nit ku baax ah yàgg yàgg Alima booy maa ngi lay nuyu di nuyu Saliou Khoule sama rakk bi na fii sama xarit moom itam Saliou maa ngi ko nuyu bu baax di nuyu bugaan ngay daan sama xarit nit ku baax la. di nuyu waa Réfane ñëpp seen problème mu bee la am ak F. boo gisee tey ma sol casquette comme ni nga ko waxee. man maay chef de. cabinet maire a Djibril Thiaw maay chef de cabinet am promoteur la mbër la. politicien la aussi. dinay fa fa fa fadam tout. waxoon naa leen bu baax nit ku baax nga. al buri bërëm pire njëriñ dina neex parce que ñëpp a jàpp di nuyu aussi samay xarit nag Diop di seen la lonaas di nuyu Omar Sow doomu Bambey sama xarit nit ku baax di nuyu Mor petit promoteur di nuyu waa Refane ñëpp di di siyaar aussi Jamil Sam sama xarit. Mhm. nit ku baax la jërëjëf. jërëjëf wuli waat ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu ngi kontaan bu baax a baax ci am na solo waaw. Eh, eh, am na keneen ku ñu rejoindre de ki mooy Njambaan. Njambaan a ngi nii de. Uh-huh. ki moo tax Dakar Dakar desul ci desul desatul ci réew mi. mooy mooy mooy njambaan moom moo war a bëreeg Alboury biram Penda Ndiémé ñoom ñaar nag ñaari mbër yu neexoo lañ njambaan xanaa nag nga nekkoon di jamb garab yi. waaw xam nga maa ngi jégalu bu baax a baax. Eh. yoon bi xaw yaa xam quoi. waaw ñu jógee daa sori <laughs> a baax di jégalu. ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu ñu ma fekk ñëpp. Souleymane ak mbër yi ma fekk. Ah. Père Mengone. Faram Tour. siyaar ñëpp bëggee ñëpp bëggee sama adversaire ba Alaaji Mbay fekk ñu fekk ñëpp maa ngi leen ñu bëggee ku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen ñu sant baax a baax di sant ñi mu fi ma jógee muy géejawaay ah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñi ma àndal Lamine Binu Cheikh Ndiaye di siyaar sama doomu nday Assane di siyaar waa géejawaay gi yépp ah waaw siyaar naa waa géejawaay gi yëpp cat ba cat waaw mi ngi noonu jërëjëf Njambaan moom moo war a bëree ak ki nga xam ni moom moo di Alboury Biram Penda Ndiémé njàmbaar nag moo tax Dakar desatul ci réew mi xadi colonel dañuy nuyu tamit suñu technicien bi xam nga tey dañu ñaari technicien Alaaji Mbay Ngoone Fall kenn du ko génnee ci làmb lam ci xam kenn xamu ko kenn du ko ci dab waaye li mu xam ci làmb du ko ci dab ay technicien lañu Fadam ñu mm. bàyyi la ko nuyu xam naa bu ci karamee di nga ñu jàngatal mbëri kenn ku qualité ak defam ñu ngi lay ziyaara mm. Alaaji maa ngi lay nuyu di ñaanal di la nuyu sa assistance boobu du nuyu axlu làmb yëpp du nuyu suñu bàyyi mbay ngoone di ñaanal réew mépp jàmm ndax ku dul ñaan ku dul may ku dul ku ku joxe jàmm daal ñaan jàmm la jig Fadama ngi nuyu réew mépp du nuyu structure bu mag boobu di moo gën events nga xam ne nii bi mu ñëwee ci làmb yàggul waaye def na ci empreinte du nuyu Pape bàcc li mi nga xam ne daanaka mooy moo gën events ndax yaakaar naa ne ku bàyyi sa liggéey ci Amérique ñëw teewal làmb kon kooku noonu bëgg nga loolu jëm ca kanam. Hmm. muy Pape Souley bàcc li nga xam ne nii gàntuwut kenn. ñu ngi nuyu nag moo géet mi nga xam ne nii moo jiitu structure bi yàlla may ko tarangam mënoon na ko def ci ay boîte de nii wala mu def ko ci leneen waaye dana axlu làmb taxawu mu nekk loo xam ne nii axlu làmb dañ ko ci ñaanal ndam di ko ñaanal journée bi réussir Fadam mu ngi nuyu ñëpp du nuyu Njambaan de du nuyu Boucher du nuyu Albouri du nuyu Alaaji Mbay du nuyu Wuli Wuliwaat du nuyu Pape Souley Bàccili di nuyu képp koo xam ne nii yaa ngi ci axlu làmb ndax man Fadam làmb ko tax a jóg mhm. ci làmb rek lay wax ci lépp du nekkul ci làmb Fadam amu ci domaine ci domaine làmb lay wax te làmb tey jii moo ñu fii nii ndax moo gën dafa tudd dafa tudd dafa tëgg benn journée boo xam ne nii journée de la jeunesse la nga xam ne ni xale yi la ko dippee xale yi xale yi Sénégal la ko dippee muy bés boo xam ne axlu làmb yëpp dañ ko ci xaar pour axlu làmb mën ci mën cee gis seen bopp mu nekk bés boo ne nii daa boole daanaka dix grands combats ne nii tey jii promoteur yi bëri bu ñu ko amoon bés bu nekk mbër mu nekk benn grand combat lañ koy jox uti ay combat yu ndaw yu ñu ci mhm. yi ñu ngi nuyu nigaayam gii nga xam ne taa moo ànd ak moo mhm. géet ay idéem ay avantage ak li bëgg ci réew mi mooy doomu réew mi di gis ci boppam ci moom macha allah jërëjëf Cheikh maa ngi nuyu nag nga xam ne moom jox tite bii tey jii di kilifa gu mag di euh, Assane Fall Global Tex nga xam ne ni ku baax la ci man xarit la na ko yàlla defal jàmm. ndeysaan Alaaji Cheikh Sarr. jërëjëf Fadam xadi euh, général. Mhm. affiche yi laa la indil ànd caag euh, Moget global nga xam ni mu ngi liggéey liggéey bu am solo jëmee ko ci réewam. di naan picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf affiche yaa ngi nii. Mhm. ñu daal di dugg ci affiche bi nga xam réew mi dañ ko yàgg namm. heure bu ñu xalaatee ni combat bi dana am rek gars yi puus puus puus ba yegg si nañ le quinze mais incha allah muy diggante Boucher Ketchup ak Alaaji Mbay ñoom ñaar kenn ku ne danaan kii danaan toog Amérique di sànni ay missile kii nekk Sénégal di sànni ay missile bu ñu waree rek dañuy naan ndox rek dugg ci combat bi Alaaji Mbay rek dafa lool defaloon Boucher ci ay yëf yi metti ko lool te wax na li taxoon na nga daan ko waaye te xam naa loolu lépp mi ci ginnaawam te am naa yaakaar nag alaaji mbay daan nga am combat mais combat ngi nii rek sa digganteeg Boucher combat bu mag lay doon waaye nag olof dafay léebu naan wala boo sax léeg-léeg dama koy dégg ci Bombardier jeexaat foo fore doom delloo faat fa sa loxo xëy na loolu yaa ma gën a xam looy wax Boucher Ketchup lay laaj de. a euh. euh, neex. dafa war a neex. biir Sénégal la comme li Fadam wax léegi xam nga buroon koo jël def ko ci leneen mais mu jël ko pour lépp pour sigal réewam euh, sama combat maam gisee li koy xaar dafa buñ egsee ba fii rek combat lenn loo xamante ne nii lu ciy seet la war a doon lépp dafa war a ma koy wax rek mooy dañoo bëri woon 9 ans def na 9 ans 2013 lañu bëri woon suñu jublu ma bëriloo ko daw di xeex ak moom mu daw songu ma yaa may dégg bu baax ma koy mot mu jéggi may cabaxal mu jéggi mu daw ne daf may seize ma daw trois fois muy seize ma lonkal dëggal lool loolu laa waxoon comprendre nga <laughs> ah. waaw bii nag bu fekkee taxaw na combat bi dina neex dina gaaw parce que combat bee passé man moom bëri nañu vingt minutes bëriwaat ci quatre minutes ci diggante quatre minutes mu mujj ci laa daal te combat boobu dama cee physique lu bari doole ànd na Tafa Diop entraîné entraînement yu méttee méttee méttee ànd ceeg sama waa écrit Zil Balde teg ma lu métti Malo Seras teg ma ko Ama Balde teg ma ko combat bii nag maa ngi ciy yéeg diin di sëf di yanu Modou Bay laa di tingoom elu ànd ak gauche droite borom kër dafa midi service fas yéene koo defal leneen lu gën a doy waar li mu ko defal. lan nga waxoon ba dama ko doon bousee mu ne ma ah ma ne ko maa la mën soixante dix mille fois Tapha Ndar xam na loolu. Mhm. Tapha Ndar ne looloo am. ma ne ko du sa morom. Mhm. su ma la jàppee mu ma ah, ko dama lay di la bongo di la cal-cal di la ñol-ñol di la cële loolu tas àdduna xam nga mhm. mu nekk loo xamante ne sama diggante moom ñëpp koy xaar. waaw kon li des bareetul incha allah may ñaan yàlla ne moo am ndam yàlla may euh, dama koy def pour. amateur yi am lu leen neex amateur yi am lu leen neex parce que gox bi ma dëkk gox bi ma dëkk ku ne xam na ni ci jàmm rek laay dox ak ci luy boole ay nit ci luy defar xam ci loo xamante ni social man ku ma xam ci loolu nga ma xam. Mhm. yaa ngi ma gis ci réseaux sociaux laa nekk damay wax muy neex damay def muy neex kenn mësuma dégg ñu ne alaaji yaa fi wax lii lu ñaaw wala yaa fi def lii lu ñaaw. loolu dama koy santee suñu borom di ko santee ki ma yar muy maam Maane Sène ak sama maam Maguette Fall di ko santee sama nijaay bi nekk États-Unis bi Aliou Diop Niang di nga xamante ne tàyyiwul chaque jour ma ak conseil naan ma waxee li ñuy defee li nga jàppoon ci ak Boucher 2022 afa ak wuute parce que Boucher bi màgg na benn te Boucher bii li mu dajale dafa bëri dajale na mbapat dajale na bëre waaye dajale na MMA ku ne xam na ne MMA dafa dis gann karaté ngi ci boxe ngi ci judo ngi ci taekwondo ngi ci lépp ngi ci biir ndax loolu yaa ngi koy préparé ci yaa ngi koy wàcc yaa ngi koy bàyyi xel ci Ketchup. waaw maa ngi maa ngi maa pare lépp maa pare lépp parce que d'ailleurs sax combat bii nii dañ ma promoteur bi bu fekkee am na temps MMA la koy waaw bu fekkoon am na temps man ak Bousse Sane MMA la ñu waroon bëri combat bii ma nag euh. uh-huh. da ngay dem bëriwaat ak moom comprendre nga. boo bërewaatee moom ba pare ma doog a yóbbu MM ma doog leen a ma MMA loolu moo gét moo ko wax te lu mu wax dina ko def te dina koy wax assistant mu ngi nii euh, bàcc fekkee na ko ñëpp fekkee nañ ko mu ne lépp lu war sama diggante ak moom pour ñuy continuer di bégal sénégalais yi dina ko def parce que man ak Boucher du ñu ay noon du ñu ay ennemi dañoo war a liggéey jéem xool na la ñuy defaree sunu àdduna comprendre nga euh, Thione Seck dafa wax bu am solo daf ne bu jinax doon tux cigarette kon mbir yëppay maase la ko noonu. Mm-hmm. ak dëgg. waaw bu natt amul woon gaa yi fàtte yàlla. dëgg la. xam nga ndax gudd fan ba naax ba ñu lay weer ci naaj bi ragal a too dee ku rey say noonu say mbokk ñooy njëkk a jeex man àdduna dama ko jël teg ko ci loo xamante nii doy man àdduna metti ma ko. Cheikh Sarr man daaj naa mbaar di ci fanaan barki Cheikhul Khadim ci tere laay waxee samay xarit ñu may dégg. Mm-hmm. sama xarit ma àndal ak nee fanaan. kon su ma demee ba am benn néeg boo xamante ne mën naa cee tëdd damay doole sant yàlla li may dooleel sama àdduna nag mooy lu doomu aadama am yéene naa la ko ndax damaa gëm ni yàllaa sàkk ñëpp te mooy def comprendre nga man alxuraan su ma ko mënul lire tamit ñi ma xam dëgg xam nañ dama koy dégg. non yéen loolu moom bu ci dugg. waaw parce ku bëgg yàlla la. mais génnaatal ci alxuraan. non du ma ci génn xam nga lu tax. Ah. parce que boo ko mënee déglu rek day raxas sa xol ayatul kursi ma boo ko mënul déglu rek boo ko mënee déglu rek uh-huh. lépp loo xam ne lu lëndëm woon la moom dala koy leeralal waaw ayatul kursi ma tan gi ci yàlla def alaaj mbay ayatul kursi ma ko tere ku ko mënul neel ayatul kursi <laughs> nga ne woon tey ayatul kursi waaw tey waaw mais këjëb këjëb këjëb këjëb am am nga problème de eh Boucher am nga problème